jërë jëf euh, mbokk yi ñoo ngi fii ci GIE Cheikh Seydil Hadji Malick Sy sunu jigéen honorable député Yaya Diallo defati la mu daan def ndax barki démb bi ma Mbaye Ndiaye woowee maa def band annonce bi man maa ko ci tudd moom Yaya Diallo te wallaahi xaw sax ni daan na jëfandikoo lii kon bu defee lii tey day mel ni xandeer bu dellu dammu cawaar tukkiwul dafa dellu balay seedeel ni yaaya Diallo day jigéen ju mën góor euh, maam Ousmane sa mbokk hmm. conférence ba ñu defoon ñun waa Tivaouane mu naan alxaaji Yaaya Diallo parce que nee na li muy dégg turam dafa jàppoon ni góor la te sama maam dafa maa waxoon ni ma fii jigéen laa tekkiwu ma fi dara mu ni même boo deen góor sax doo fa tekki dara waaw jigéen ma fi dara mu ni loolu jigéen ju jàmbaare di ko wax te Yaaya Diallo day jigéen ju jàmbaare ba pare wax ni nag kër Seydil Xaaji Malick si moom lu mu fi jëf day fay bor mais xam na ni ay maamam def nañ fi lu raw loolu kon lim fii def daf ko fii def rek ngir barke ngir sàkk ngeen ñaanal ko yàlla yéene bi mu am ci xadara bi yàlla mottalil ko ko waaw jëf ji jëf la joo xamante ni jëf la ju ju yàgg ci Yaya Diallo ci biir ci ci ci biir xadara bi kon ñu ngi sant sëriñ bi bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla guddal fanam may ko wér ci barke yonent bi digganteem ak Yaya xam nañ ci dara xam nañ ni Yaya kilifa gi baayam la xaritam la soppeem la waaw moo tax wax dëgg yàlla ak yonent bi kontaan nañ ci kaddu yi nga fi joxe xam nañ bu baax fi ko sëriñ bi teg moo tax moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla guddal fanam may ko wér di sant bu baax sëriñ Moustapha yi nga xamante ni moo ko def li nga wax sànq ni Maodo jurul ku yées Maodo tabaarakallaa ñu ñëpp mooy suñu sëriñ day làqatu nag mais heureusement ba ko feeñalee kon ñu ngi koy ñaanal moom it yàlla na sut maamam yëpp ay fan ci barke yonent bi di ñaanal moo xam li mu ci bëgg yàlla na ko yàlla def suba incha allahu rabbi ñu ngi woo ñëpp ca xalxus ba na fa ñëpp ñëw ndax ci sëriñ bi laa dégg woon mu ne ku fa buddi ak ñax say mbir faju zahiran wa baatinan ci barke Seydi Hadj Malick kon yàlla na ko yàlla def yow it ñu ngi lay ziar bu baax ñaanal la yàlla nga gudd fan xam naa ni lii ma lay def loo bëggoo ci dara boo sañoon doo feeñ waaye nag ku boot bu ko xaj baw la yàlla yàlla guddal sa fan ci barke yonent bi jërëjëf comme li bi muy jiital lii dañu da koy jiital mais dañu képp ku mu am suba dina ànd ak yow egg fee ak leneen ak leneen loo xam dani bu leen ko tudd ndax politique wu ma ko dama koy def ngir yàlla boo amee kilifa nag muy def loolu ca dama koy def ngir yàlla ñun dañ koy tiitaroo ca ñun amuñu lu dul tiyaawan ñun amul lu dul tiyaawan amuñu lu dul kër Seydil Hadj Malick kon li ñu bëgg daal mooy ngeen ñaanalal ñu ko yàlla fi mu bëgg a yeeg ak li mu yéen a tiyaawan yàlla na ko yàlla mottali asalaamaaleykum wa rahmatullah